alors tey dañuy njëkk a waxtaan euh, waxtaanee suñu euh, rakk bi nga xamante ni moom mooy dem FESPACO. waaw euh, muy Ndiaga Fall. Mm. donc comme ni ma ko waxee woon compétition film école lañ ko sélectionné si FESPACO 2017 bi ñu amaloon nag moom benn entretien ñu dem déglu après ñu dellu si waat. waaw ñu ngi ma sélectionné ci FESPACO bi ci vingt cinquième édition bi bi am di vingt cinq au quatre mars euh, au Burkina. ci ban catégorie. ci catégorie film d'école. waaw ñu ngi ma sélectionné ci catégorie film d'école bi sama film bi tudd à travers les barrières bi ma def euh, ren bi ma réaliser ren waaw ci lañ ko jël quoi bi nga xam ni day wax ci affaire caste. wala yow da ngaa fàtte ci yax bu rëy bi nga bokk ñun ñi nga xam ne famille bu noble lan famille bu riche nga bëgg a rax suñu deret am ba mukk ñàkk jom. billaahi yaa juuti ji la nàmp ci mbaam. may ma man ba pare. cëm man tëgg moom fépp fu mu toog dama ciy suy doom man fu mu toog ma gis fa doom. ma bett loo ci affaire mariage entre jeunes yoo xam ni bokkuñu kast comme ma nekk géer bëgg a taq benn géwal ou benn ñeeñoo. waaw ci loolu laa def ci film lan moo waaw parce que loolu la ñuy dund fii ci Sénégal loolu si suñu société loolu daf koy refléter bu baax euh, loolu c'est visible quoi ci suñu société boo gisee maa boo gisee ci biir film bi maa ngi def euh, maa ngi maa ngi wane carrément société bi ak di wane environnement dëkk bi nit ñi et tout nit ñi ñuy doxee ce qui montre la société quoi film bi loolu lay refléter quoi. treize minutes la court métrage la. d'accord mooy sa premier. Euh, bii mooy sama deuxième court métrage. d'accord waaw est-ce premier court métrage bi amoon nga si lii nga am tey non non parce que premier court métrage bi bon je cherchais plus à ça parlait de civisme. 13 minutes la woon comme bii c'était dans un bus d'ailleurs may profiter ci occasion pour remercier monsieur Birane Ndour moom dimbali woon na financièrement ci film boobu pour ma loué bus bi. bon est-ce que yow bokk nga ci jeunes yi nga xamante ne dañu euh, Fopica bi bi ñu taxawal. Mhm. bénéficié wu nañu. bi mosuma demandé être ci Fopica Fopica bi parce que samay production chaque jour ma koy gérer sama sama bopp. Mhm. c'est difficile mais je fais avec les moyens du bord avec l'aide de quelques amis waaw c'est ça ak comme ak comme je l'ai dit tout tantôt léegi nii ak Birane moom sa su may def film rek dinaa ko bind nangam wala mu wan ko synopsis bi comme ça moom day ñëw mu. appuyé ma 17 euh, films la am na ñoo xam ne ay documentaire lañ def ak euh, ak ay fiction defe naa fiction yu bëriwul sax. d'accord neuf sénégalais neuf films sénégalais neuf films sénégalais yoo xamante ne ñooy dem FESPACO. Mm-hmm. Alain Gomis mi nga xamante ne jëloon na étalon bi mm-hmm. en 2013. Mm-hmm. xalaat nga ne Sénégal am na chance bu dul même Alain Gomis si ñeneen ñi ñoom Moussa Touré. ak euh, Diallo ak ak Fatou Touré bi. am nañ xalaat nga ne am nañu chance. chance bu baax pour ren pour remporter prix yu bëri. waaw ndax film yu fa dem yooyu yëpp comme laa comme laa di euh, directeur de cinématographie bu Sénégal keroog amoon nañu réunion foofu au li mu wax dafa leer nee na film foofu bu ñu demee ba sélectionné film ça veut dire que film yu baax la nit ñi def pour ñu sélectionné leen. réalisateur liggéey nañ bu baax comme ku ci mel ay grand Moussa Touré euh, faatu Fatou Touré Alain Gomis comme ni nga ko waxee ñun ñëpp vraiment góorgóorlu nañ. si ak jafe-jafe yu cinéma sénégalais am pour yow fan fu mu fu mu amee problème mooy côté production parce que boo boo gisee comme comme Sénégal dëkk bi nu mu mel rek production bi chaque jour ça va aux séries yi parce que euh, c'est assez c'est commercial quoi aussi tamit bokkul mais ñun dañu war a gën a dimbali ci li ñuy def mooy jaay dëkk bi mooy ñu génnee film bi mooy wane. Euh, li xew carrément ci dëkk ci Sénégal mooy dem représenter Sénégal feneen comme tey ni ñu ko gisee nii ak film yi ñu sélectionné ci FESPACO bi. voilà Ndiaga Fall il s'appelle c'est un jeune réalisateur c'est la deuxième fois mu def benn court métrage donc ren bi dafay dem euh, ci compétition euh, FESPACO alors voilà. dem compétition FESPACO à travers les barrières mm. comme nu mu ko waxee rek muy dellu si si euh, problème de casse yi ak yeneen problème yu muy wax si court métrage bi mm. nga xamante ne treize minutes la waaye euh, lu lu lu ñu si war a lu ñu si war a dolli mooy ne ci FESPACO bi on aura neuf ñu neuf kii yu ñu représenté y aura Abdoulaye Hadouane série Tundu dina dinañu représenté woon tamit euh, si compétition série série bi nu mu tudd encore Tundu Wundu voilà donc y aura documentaire bi meilleur film documentaire bu Ousmane William Mbaye ah. si si Cheikh Anta ah. Euh, Come to You donc euh, ak euh, si meilleur film muy bu Alain Gomis bi félicité moom mi nga xamante ne amoon na étalon d'or si atum 1993 mhm. am na ñeneen ak ñeneen au total c'est neuf donc je pense que Sénégal comme nuñ ko waxee am na chance su génn si même si dañuy wax ne suñu cinéma dafa am ay problèmes yu bëri production xale yi nuñ leen di financer ak yëpp je pense que même loolu bu amee tamit am na ñoo xamante ne ñi ngi góorgóorlu naam financement yi bëriwul ba ba ba année dañ ko génne muy dem si yenn festival yeeg yooyu pour représenter Sénégal mu ngoog très intéressant en tout cas on lui souhaite bonne chance ak ñeneen ñi muy àndal pour dem ci euh, euh, FESPACO bi euh, moom Ndiaga Fall bu fi baaxul rek fee fee baax Ndiaga comprendra pour a donc xamal lu ma la waxul ñun ñu ngi ñun ñu ngi sa ginnaaw on sera on sera avec toi allah fii ba affaire bi di jot. et puis en plus de ça am na livre boo ñuy présenté Aïssatou Payfal. waaw tey affaire prison la ñuy wax. donc c' est Mohamed Lamine Diop moom mi nga xamante ne nekkoon euh, euh, yore woon euh, kii wu rëbës bi da nga xamante ne mu amoon ay jafe-jafe. Ah, non je je moo nekkoon comment on appelle ça encore rappelle-moi le nom j'ai oublié. moo nekkoon fan. moo nekkoon ci direction administration ah, pénitentiaire bi voilà. donc moo moo bind livre bi système pénitentiaire sénégalais. Ah. wax wax na historique bi euh, historique bu système pénitentiaire wax ñun euh, suñu système pénitentiaire naka lay demee naka la vie bi di demee noonu ak euh, ak ak prisonniers yi fa nekk mhm, mhm. ak forme prison yi touru prison yi am prison hors classe prison voilà j'ai oublié les deux niveau autres noms waaw voilà niveau yi les ah. Mac et yi hmm. nekk Rufisque yi hmm. nekk Rebeuss ak hmm. yëpp donc dal am na lu bëri loo xamante ne euh, xamal nañu ko ci livre bi ci wàllum même activité éducative yi ñuy jox euh, prisonniers yi mhm. seen condition matérielles yi lépp lu ñu nekkee euh, donc wax na ko nu ñuy financer le matériel et tout wax na ko ci livre bi pour que nit ñi am tout aperçu par rapport ak li ñuy wax tout le temps si prison yi moom mu am si tamit vision am moom mi nga xamante ne nekkoon na directeur administration pénitentiaire ah mais très intéressant voilà c'est très c'est très intéressant c'est disponible Harmattan Harmattan ku ko bëgg rek boo demee am voilà et comme à chaque de livre dañuy wax ni yàkkamti mhm. euh, livre Pape Ngagne bi génn mais ñu fàttaliwaat téléspectateurs yi que ba léegi euh, livre bi yegg seegul Sénégal donc jarul ngeen di yàkkamti def leen ndànk bu ko kenn sorxo sorxo liir bi boo ko sorxo sorxo gaañ ko ci bisu tudd bi te du ko jar mm-hmm. donc quelques livres yi jot a ñëw Sénégal mooy yi nga xamante ni euh, Pape Ngagne daf ko jébbal ay kilifa mm-hmm. pour am seen bénédic bénédiction loolu yar lañu ko tuddee boo dee mm-hmm. boo dee boo dee boo dee xale bu yaru euh, balaa ngay jox ñeneen da ngay njëkk a jox say kilifa donc sed na ay kilifaam yenn ci ay exemplaires jot ñëw Sénégal li ci des nag yegg seegul disponible et on donnera toutes les infos concernant euh, naka ngeen ko mën a jëndee ba ñu livrer leen ko ba ngeen am ko et séance dédicace dina am on le recevra euh, ci euh, télé bi ci suñu émission pour mu waxtaan ak ñun ci livre boobu faut le rappeler c'est un boo xam ni ñëpp a ko yàkkamtee lire parce nga jàng ak ñàkk ñoom ambition ci àddina xam ni ay xale lañu ndaw ndaw lañ yooyu dafa am solo nga koy lire pour wane ni tout est possible comme ni ko waxee tout est possible euh, affaire bi kenn moomu ko barki borom Touba ci domaine bi ne nga continuer am sa passion xam ne lii nga bëgg nga nekk ci euh, yàlla jàpp la ci livre si la fa <laughs> ko waxee ni ku yàgg ci teena baak fekk la fa c'est vrai et yàlla du bafana bafana du congolais du du du sénégalais du njaago kese yàlla yàlla ñëpp la fi nekk na ah. c'est-à-dire boo duggee boo ci benn affaire su borom mën na la mën na la cee e na la cee jàppale quoi et franchement euh, nous on attend le livre ah inchallah parce que vraiment ku yàgg ci teen comme tu l'as dit baak fekk la fa quand même ñuy ah, rootee hmm. non non baak baak mooy affaire bi ñuy rootee dañuy tànkee ndox bi voilà voilà xeex xeex xuloo wala kii bi ci pundub teen bi gaa ñu amul baat la ñu amul baat bi ñoom ñuy xuloo seen biir parce que amuñu lu ñu rootee amuñu lu ñu rootee déggoo ma de bu <laughs> la nit bañatee bu jëlee xeex xamal ne amul baat te yow am nga baat ba yoroot ci teen bi <laughs> déggoo ma de <laughs> ah def ko def ko di doon ko fi te bu ci sori da sori sori ko Maodo da ngaa sori loolu dafa neex li ma ko laaj. parce que dafa bëggoon a sori ci nuyoo bi. xam nga américain yi dañu def paak paak paak paak paak paak paak waaye man fii laa mën a yem moo tax ma laaj ko ndax da ngaa sori ci nuyoo da ngaa sori. dañu yebale ko fii fii am na yu ñuy teggante paak paak ka ka ka ka <laughs> si yow Tahiti yow États-Unis nga dëkkoon xam nga nuyoo bi. kenn nuyoo il faut nga jàngal ma ko nuyoo bu gudd. <laughs> j'ai vu benn enseignante euh, états moom xale yi bu ñu ñëwee bu bu ñu sonnee rek xale yi dañuy ra élève un par un noonu la leen di nuyoo. waaw moom amul lu ko la ñuy def mais yow sori woo. merci donc tu as le temps encore ah. <laughs> am nañu temps des ak yow. Alpha Alphi loo ci yow sore ko Alphi. <laughs> sori woo wala da ngay dem France moo tax mënoo sori ci dara. waaw bul jël benn engagement. li <laughs> ka may jàmm tuuti rek ba nga dem ba ñëw. waaw waxuma yóbbante dama ni. bul jël benn engagement. engagement wu Ricardo yëpp teg ko ci suuf. <laughs> bu ko jël <laughs> bàyyi ko ba tëb <laughs> te kat jeeg ji bu ñuy doog a am jëkkër un mois koo coroom mu day óbbali xadisaat dafa léegi boo gën a tayal ci télé bi depuis qu'elle s'est day ndax ñu óbbali rek <laughs> ah je seeni mari da ngeen maa yeb rek ci patu takk mëlëñ mëlëñ doy la mënuñ mënuñ ba dootuñu comestible maa kontaan ci ñii <laughs> wuyul Alfi Alfi xale dañ maa yem benn karo poxotaan laa dese mi duñ ko buddi buddi buddi buddi mais heureusement ba kuñ ci takk rek nga may ma jàmm et je suis content yàlla na ngeen am jëkkër yéen ñi amagul jëkkër ko voilà yéen ñi am ba pare yàlla na ngeen yàgg ak seen ay jëkkër yi bu ko defee ngeen yàgg ma am may jàmm parce que man dama sonn laa wax mu ngoog tàkkirike <laughs> oui on vous yow est-ce que kii di ngeen ko génne fi. mu ngoog donc Aïssatou Mbaye Fall après après après. après livre bi ak parenthèse bi ñu ibbi ci euh, Pape Ngagne que nous saluons d'ailleurs il nous suit tous les matins euh, mën nañoo jàll ci agenda culturel après la pause après la pause <laughs> waaw d'accord euh, voilà donc c'était juste pour dire que Kémit Slameur oui ak euh, Souleymane Diamanka. Mm. dañu génne benn recueil de poèmes. ah ben c'est bien. Mm. voilà donc mi ngi tudd d'année en année. Mm. et voilà donc euh, c'est pas encore disponible. Ah. mais par contre le format numérique il est il est disponible. sur le net voilà. donc ñu dellu ci agenda culturel. Mm-hmm. Euh, voilà, donc il y a une randonnée pédestre euh, de, la, de la Culture la commune, ministre de la Culture euh, Naradef le 12 février, place du souvenir, l'Enkei Doré, gare Corniche Ouest, monument de la Renaissance africaine, avenue Cheikh Khanta Diop, Postofan, rue MSSR, Donc ce sera le 12 février, Inch'Allah. Il y a le festival de l'Inde, ce sera jusqu'au 18 février 2017. C'est organisé par l'ambassade euh, de la République l'Inde au Sénégal théâtre national Daniel Sorano lañ koy amee donc tout ce qui est musique danse cuisine oui, indienne surtout que Sénégal dañu voilà. a culture dañu bëgg euh, culture, culture indienne te seen seen seen seen togg dafa dafa neex c'est mhm. épicé et tout voilà c'est très épicé donc voilà dina am mos naa cee ñam c'est trop mais je sais pas ah, mais moi c'est Casablanca euh, pour mes vacances d'il y a cinq ans restaurant euh, voilà, que j'ai ouais. Euh, ok, d'accord, on a compris. C'était bon. Euh, dina fa am yëpp. sama benn meeru Inde moom ma ko yàqaloon fii ci dëkk bi. <laughs> <laughs> et puis Sénégal dañu yàgg bëgg culture. Euh, ak woy ak yooyu ak film yi Amadou Badiane tu te rappelles. Euh, na ko tooñ tout le temps moom il faisait ay émissions hindou. Euh, y en a tellement mën nañ cee lim ñu ñu bëri. ak ki ngay nirool ah, yow. Oh. oui Mamadou Mamadou Kane alo boo mbay mu naan xamaare xurkee jàngal me. alo boo mbay alo boo mbay xaramaare jàngal me. <laughs> comme sa sosi la de daan jaawale temps bi ñuy bi ñu bokkee bi ñu bokkee télé à l'époque de 2STV donc moom ñu ngi koy nuyu ak ñi bëgg culture inde yëpp mën nañ ci dem j'ai une maman aussi euh, moom presque moo leen jiite euh, elle habite parcelle Koumba Diop am nañu seen genre Koumba Diop association bu mag yi euh, peut-être léegi ko xaw a wàññi rek mais à l'époque boo gis bu ibbee bu ñu ibbee seen programme dañ ci boole émission bu dee comme ni nga wax dafa wàññeeku bu baax Mamadou Pam moom Euh, mhm. mu ngi nekk rajo Dunia il faisait une grande émission xam ndax mu ngi koy def ba léegi ci euh, musique indo Mamadou Kane boobu ma la wax ak euh, voilà Amadou Amadou Badiane ndeysaan. ndeysaan voilà oh c'est vrai hein. donc lépp ci festival indi bi y aura ne me demandez pas mon âge. yow da ngaa bokkoon club yi ma fekkee oui mais ñun ñun ñun l'époque xaw ma ndax yéen mais ñun ci suñu suñu xaleel RTS par exemple da daan diffuser ay cinéma ay films indo dimanche par dimanche parce que mardi je me rappelle dañu interdit ñu ko doon seetaan parce que dañu waroon jàngi arab non non léegi dañu doon puni. c'était au théâtre du je sais pas au théâtre ce soir. Uh-huh. après. Euh, dimanche. théâtre entre euh, les jamonoy tey et ñeneen. Daaray Kocc les Daaray Kocc voilà les Daaray euh, Kocc oui par mardi lañu doon am théâtre mais après. je pense dimanche dimanche lañu doon def. dimanche soir ay 15h boo añee ba pare ren ñu dem jàngi léegi de voilà. non mais dimanche non non dimanche c'était des talk show dimanche dañu doon teg TGP ak Babacar Diagne. si mais am na <laughs> dimanche. <laughs> Babacar Diagne waaw TGP fekkewu leen. TGP xam naa eh, ko xamuloo TGP à l'époque suñu kër fonde leen daan togg chaque dimanche. donc ñu ko booree sa fonde ba pare TGP c'était bien avant ñuy teg. tu sais le dimanche il y avait euh, le truc de l'animateur français là te nga xam ne du màgget mukk il se lifte tout le temps. ah ki doon def. monsieur Drucker monsieur Drucker. l'increvable waaw RTS. dañ ko daan teg. waaw dañ ko doon teg c'est vrai waaw. RTS dañ ko doon teg émission bu yàgg. boobu rek dina ma Champs-Élysées je sais plus encore. ah yow yaa ngi ci ginnaaw. <laughs> ñun ñu ngi fi. non non mais yow boobu fekk nga ko yow tamit. fekk naa ko mais hélas. <laughs> mais boobu tamit deux ans. Eh, je te dis eh, eh, mais tamit deux ans. fii nii. <laughs> aux Champs-Élysées. hélas bi c'est pour moi parce que man fekkee naa ko évidemment mais ñi ñi xamuñu. non ñi kii xamu ko ak ñaar ñi ñett ñi xamuñu. tu te rappelles de générique Champs-Élysées. oh attends attends. non non non c'est pas la chanson. non non dama juum dama dama juum en fait. non non. moi j'aime xam naa après si, si, on l'a repris ci benn woyu Titi. voilà tu as raison tu as raison. ah c'est vrai. Il y avait le truc du, du, de, de sport avec euh, football en Allemagne. Yeah, football en Allemagne. En Allemagne. en Allemagne. Tout yeah.